bonjour sama gars yi di leen jaajëfal te di leen wax bienvenue ngeen dal ak jàmm sûrement seen YouTube Net Bi TV di am kontaan te mbégte bu baax a baax seetaan bi ngeen di ak suivre ngeen di di leen ñaan yéen ñi nga xam nekk gan seen bi te abonné goo leen ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche de notification bi di dikkee defee waxtaan rek série di jabaru góor gi si ki nga moo di Aïssa Aïssa nag bi ngeen xoolee dem si tonton Youssou wax ko na ko sama yaay dafa bëri kees sa te soo ko bàyyi nii mu lay bàyyi rek lu mës wax si seen diggante pour mu taxaw en tout cas Aïssa wax naa tonton Youssou te tonton Youssou dégg na lu mu wax loolu nag mel na lu may tonton Youssou fit ba tax tonton Youssou ool ki nga xam ne ngir di waxu moom si wàllum mariage bi ba tax nag Yacine xamal ko ne ko ñun dañoo nekk ci miraas te dama bëgg nga muñal ma ay weer waaye nag loolu nag mel na dafa gudd si tonton Youssou ba tax tonton Youssou xamal ko ne ko yow suñu diggante yàgg na kon ay weer bu si yokkee day gën a gudd rek waaye nag Yacine moom bëgg naa dugg sëy bi mais nag dafa am lu tax mi yéexal parce que mi wax tonton Youssou naan ko da wax mereem ak Lamine la moo rey seen yaay mu mel ne loolu dafa diis si tonton Youssou ba tax tonton Youssou nee na loolu xalaatu ko wax ñoom Lamine parce que tonton Youssou la mu defoon dafa ñaaw parce que bàyyi fi seen yaay dem di seeg beneen jigéen ba mereem ak Lamine seen yaay daal di xaru loolu nag mu mel ne diis na trop si tonton Youssou pour mu wax leen ko Yacine loolu la xam moo tax bëgg ko di dugg sëy bi te loolu di yëpp yu bon lu tonton Youssou defoon gars yi xam naa dañuy yemandee ni fii si vidéo bi rek di am mbégte ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen doon seetaan ak si bi ngeen doon siigu di leen ñaan yéen ñi nga xam ne ngeen gan seen bi te abonné goo si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàtte bés cloche de notification bi jaa jëf